kum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan ba tey yéen a ngi fii ci aéroport Azeiza ci murit yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon tey ngir teertu si sëriñ Abo Mbacke moom Cheikh mu Fadal Mbacke ah kon du ñu def rek lu du tàllal ki nga xam ne mooy jëwrin Daabo suñu mikro mu wax tey ana lan la yëg ci jël si sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ginnaaw biñ sant yàlla junni ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di. ñaanal sëriñ Sidil Muxtaar yàlla yokki leeram euh, di ñaanal xalifatul ham al muridiya sëriñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal sëriñ Mbàkke Abo mu waraka imnu sëriñ Fàllu mi fi ñëw yàlla yokk ay fanam te wéral ay cëram Euh, di ziar tamit télévision bi xamante ni moo ñuy jël ni muy Touba TV di la ziar jëwriñ Baye Fall yi muy Serigne Assane Baye Fall euh, ginnaaw loolu di ziar Serigne Mbacke mi fi nekk euh, muy sëñ Mbacke Matilay ñu koy wax sëñ Cheikh Matilay mi fi nekk toogaay Serigne Touba te mat ko sëkk di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak tawféex di ziare suñ jëwriñ sëñ Fallam naka noona Serigne Yankuba Gueye mi xam ne moo taxaw bis bi ba mel nii waaw suñu yëg-yëg ci bis bi rek. am lu dul kontaan rek ndaxte dañ di ay ndaw di liggéeyal Serigne Fallou ci dëkk bi euh, buñ demee nag ba Serigne Fallou di ñëwal boppam din seet si fekk nu ñii nii nu tooge ah amul defarwaatal dañ ciy sant Serigne bi bu baax a baax a baax xanaa rek di ñaan yàlla euh, Serigne bi ëgsi si jàmm comme nii nu koy teeroo rek ñu dalal ko ci jàmm liñ ci sàkku lépp mooy am ngërëmam kon nag yàlla na ni yàlla defal euh, ñu am ci ngërëmam rek loolu rek lañ ciy sàkku Serigne Assane yëg-yëg bi ñu ci am nag moom sedd na suñu xol ba tey eh, am na si suñ xol yëg-yëg boo xamante ni ni ñuy misaale àjjana ñun jàpp nañ ni ña nga ca biir ndax yëg-yëg waaw xanaa rek di ci dolli eh, maanaam sant mboolem taalibe bu fi ñëw rek ak waa kër Serigne Fallou taxawaay bii ñu taxaw te yàggee ko wax dëgg lii wane na ni eh, daayira bi nii dajee ngir jëmmi sëriñ Fallou lii firndeel na ni ñii ñu bëgg sëriñ Fallou lan ñu ko yaakaar lan ñu ko sopp lan ñu ko wóolu lan ñu ko doyloo lan nag kon di leen ñaanal ñëpp rek ñu am jàmm ba ngërëm liñ ci bëgg yàlla defal nu ko lu kawe suñ jort jërëjëf sëriñ Daabo euh, kàddu yi am na solo lool kon bu ko defee rek euh, ki nga xam ne mooy Serigne Saliou mi ngi nii ci suñu wet euh, di jëwrin ci biir kër Serigne Fallou fii ci Touba Argentine Serigne Saliou ñu ngi lay ziar. waaw kilifa ñu ngi lay doon ziar bu baax a baax sëñ Assane di la jaajëfal bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi di taxawaay taxawaayu mboolem mbokki taalibe yi teew fii ci bés bi ah, mu bu ngeen gisee bés bi rek ngeen xam ne bés bi ah, suñu kilifa suñu sang suñu yaakaar suñu lépp eh, moo fi teew muy sëñ kan muy sëñ abo moom sëñ fàllu ah, eh, moo tax bokki taalibe yëpp bàyyi seen yitteeg seen yëpp teew di jiital ci eh, jaajëf ji nag yi ñuy wax mu ñu ci jiital ki nga xamante ni mooy jëwriñ ni jëwriñ ni muy sëñ Yankuba wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bu am solo bi mu def ànd kooku mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi fii ah, di rafet lu baax a baax it suñu jëwriñ sëñ Fallou am taxawaayam ci bés bi macha allah ak bokki taal bi nga xam ànd na ak ñun ci bés bi yàlla bàyyi seen yi teg seen lépp wax dëgg yàlla ki nga xamante ne kii mooy suñu lëpp ah, di ñaan suñu borom indi ko ci jàmm mu yegg si ci jàmm fekk ñu ci jàmm bépp yéene boo xam ne it am nañ ko it saa borom defal ñu ci kawe suñu jot ci barke Seelu Xaddim ñu ngi ne ak Serigne fàllu Diop mi nga xam ne moo ànd ak Serigne bi muy Serigne Abo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ndeysaan yoon wi sori lool diggante Sénégal ak Argentine sori lool wax dëgg yàlla ngir bëgg a dimbale mbokki taalibe yi rek tax coono géeg yëpp ndeysaan mu daj ko ba yegg si fii kon du ñu def lu du tàllal Serigne Fallou Diop suñu micro laaj ko maanaam ana nan lañ jógee Sénégal ak wax dëgg yàlla maam mu xamal ñu tuuti rek ci ki nga xam ne moom moo fi ñëw tey muy Serigne Abo mu Cheikh Mouhamadou Fadal. waaw Baye Fall ginnaaw bu Serigne bi agsee ci jàmm. sant sunu borom bu baax bant baax a baax sant Cheikh Mouhamadou Fadal mm, di leen jot li nuyoo sëriñ Touba sëñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassir ak njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp ak mm, mbokki jullit ya fa nekk yëpp am kontaan lool ci gàttandu bii ngeen ko gàttandu ngir jëmmi Cheikh Mouhamadou Fadal loolu xolam seet na ci lool euh, ba tax na ñëw na ngir yërëm donga yi yërëm jullit yi yërëm taalibe Cheikh Bamba yi ba tax mu sàkk yoon wi ñëw ngir dimbali sunu ñaanal ñu ba euh, xat-xat yi nu nekkee Cheikh Amadou Fadal teggal na ko te am nañ ci yaakaar baax baax sëñ bi ñëw na si jàmm te bu ñëwee incha allahu euh, da ngeen yëg ne Cheikh Amadou ñëwoon na fi da ngeen am jàmm da ngeen yokk da ngeen mucc incha allah. alhamdulilah rabbil alamin